voilà jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ne yéen ñuy seetaan ci chaîne YouTube Oslo Football Academy comme ni ñu leen ko waxee woon sànq tey ñu ngi si stade euh, Amadou Barry bu waay pour galop d' entraînement académiciens yi soo ngeen déggee académiciens yi ñoom ñooy euh, waa Oslo Football Academy ñoom ñoo nekk nii sama ginnaaw euh, tey ñu ngi taxaw ak Kamou moom mooy responsable médical bu Oslo Academy Football Academy Kamou ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. asalaamaaleykum ngi leen di Euh, di kontaan ci reportage bi ngeen di def nii ci foot Oslo Football Academy. Mhm. donc euh, vraiment kontaan naa ci trop euh, ci ngeen ñëw dima laaj ci équipe bi. Mhm. pour ma mën ci wax. jërëjëf Kamou kon nag mu daan loo xamante ne lu am solo gis nañ ne staff médical dafa nekk loo xam ne lu am solo ci wàllu équipe. ay blessure day faral di am. lan la joueur war moytu si jamono ji surtout si sedd bi. Mhm. waaw surtout li li gën a li gën a am solo mooy joueur yi dañoo bëgg bal. ñoom bu ñu gisee bal léegi léegi léegi rek soxlawul sax ñuy sol si équipement commencé nañu dóor ci bal bi te loolu man dama ci insister dama ciy veiller mooy joueur bi avant muy laal ballon. Hmm. na musculum tàng. Hmm. na échauffé wu def étirement yu baax kooku dama ciy waxtaan ak sax coach yi bu dul ci biir stade bi sax bu ñu nekkee au lieu de regroupement dama ciy insister ci loolu ne leen fexe leen ba bu joueur yi. laal ballon bi te fekk defuñu échauffement hmm. parce que pratiquement boo xoolee léegi blessure joueur yëpp lu ñu lay wax dama am adducteur mhm. dama am sama arrière cuisse dafay métti sama lii alors que dañuy ñëw fekk bal rek ñu dóor ci mhm. mais man damay veillé ci loolu du ma ko sax nangu boo xoolee fii ballon yi sax bu ñu ñëwee ci biir sac bi lañ leen di bàyyi mhm. ba ñu def li ñuy def ba pare moment bi ñuy def seen étire seen échauffement ak yooyu ci la ñu soog a génnee ballon bi donc boo xoolee démb sax bi ñuy commencé suñu séance am na ci groupe boo xam ne dañoo profité wàcc pour ñëw def ne dañuy def tóoro ñu daal di def bañ dañoo mer sax ñoom alors que loolu seen intérêt la seen intérêt la blessure arrêter carrière alors coach dernière question alimentation ak récupération dafa am solo football. Mhm. Euh, tey jii lan ngay digal wala conseil ñi nga suivre. football bi ci seen alimentation ak seen récupération temps le joueur war a noppaliku. li li c'est sur la récupération joueur bi ni muy entraîner la récupérer ci joueur bu bëgg carrière mm. ni muy entraîner effort yi muy def di entraîner effort yooyu la war a def pour rek pour la récupération récupération moo yor joueur talent boo mënti am ak loo mën a ñeme ñeme ñeme entraînement bu fekkee ne doo récupérer su fekkee ne doo récupérer mhm. donc sa séance bi ngay def du la jëriñ dara mhm. du la jëriñ dara da ngay jouer dix quinze minutes nga pare ci match bi nga naan lan moo ma dal fekk manque de récupération donc mais récupération dafa am dafa am solo ci joueur mhm. temps bi ngay def di ko di ko di football di temps boobu nga war a jël pour la récupération récupération récupération bi sax moo ëpp fuuf intérêt séance entraînement bi ngay def mhm. donc récupération dafa am ci joueur pour alimentation bi aussi mhm. joueur dafa war a am une alimentation saine mhm. seet li ngay lekk da nga war a xool équilibré surtout naan ndox bi nag dañuy faral di fàttali naan ndox loolu moom dama leen koy wax joueur waxuma la sax joueur mais doomu aadama bi ci boppam war loo xaar ba mar sax soog a naan lo sax ba voilà justement mm. aussi c'est di wax séance yi ngeen des donc insister sur la sur surtout jour mm. mais aussi équilibré aussi di di comme aussi qualité ci biir kër gi la te muy nekk lu repas chaud bañu nekk lekk lekk yu sedd yi lekk ci mbedd bi quoi surtout ça jërëjëf coach docteur Kamu ñu ngi koy ziar bu baax a baax ci ci li nga xamante ne li mu eh, wax nii lu am solo la si kanam ko ci jour